Pour plus de vidéos d'informations, abonnez-vous sur la chaîne YouTube de Charo Info TV. Appuyez sur la cloche pour avoir des notifications. ngir gëna a mën jot ay vidéo xibaar à ci chaîne YouTube de Charo info TV nga daal di bëss li nga xamni cloche bi ngir mëna jot les notifications. Oui, euh, en fait tey li fi journée internationale boo xam day

ndaxte loolu bu amee rek maanaam société bi euh, mooy euh, mooy am ay jafe-jafe ndaxte population bu informé wulee lu bëri du ko mën a xam ba mën a agir wala mën a mën a bokk ci yenn yi. ñun société bi doo gis te donc il faudrait ñu bàyyi ñu xel bu baax sàmm suñu kaaraange plaidoyer bi moo di ne euh, yestuwaat suñu loxo bi ñu tàllal population ak politiciens yi wan leen ne suñu kaaraange ñun ñun war nañ ko assurer mais ñoom it war nañ assurer suñu kaaraange donc vraiment surtout quand ñu jëm ci ay élections nañ ñu bàyyi ñu liggéey liggéey bi nu mu waree ñun ñu responsable lañu taal dëkk bi tax ñoo jóg ñu responsable lañu xibaar bu wér la ñuy indi nañ ñu bàyyi ñu indi ko ni mu waree. tey moo ñu fi andi ndaxte boo xoolee partenariat bi nga xam dañ ko am ak article 19 ak ci financement wu Union européenne ak yooyu noonu euh, projet bi mi ngi nekk ci 17 pays à travers le l'Afrique et euh, ci dafa euh, xeetoog li ñuy wax maanaam contexte Covid 19 bi et surtout di wax ci wàllu manam sécurité journaliste yi naka la ñuy def ba maanaam documenter que génne li nga xam te ne moom journaliste jot a dund daj ka fi depuis ay weer a et wan autorité autorités yi que ne maanaam li ñuy wax ni fuñ ko tek la afam fuñ ko tek fu leer naññ et donc il faut manam ay mesures yu lèr mën ci am sinon kat jafé jafé yi mën na xaababal mën na jéggi dayo et boba dëkk bi suñu démocratie boba nit ñi ŋàññi à travers le monde. Pour plus de vidéos d'information, abonnez-vous sur la chaîne YouTube de Tiaro Info TV. Appuyez sur la cloche pour avoir des notifications. ngir gën a mën a jot ay vidéo xibaar aboneel ci chaîne YouTube bu caaro info TV nga daal di bës li nga xam ne moo di cloche bi ngir mën a jot yooyu les notification